ale yi ñoo gaaw rek te yabaate ci joxe information waaye man moom cas bi ko gaaw a valider du ma ko gaaw a accepter parce que gis nga ay fond d'écran yi nit teg téléphone mën na di xool TikTok mën na dugg Instagram mën na nekk Facebook te xale yu jigéen ñi foo leen fekk seen photo yi ñu ngi défilé ci kanam écran comme ay bouton dënn foo leen fekk ñu ngi naan nii moo tax ay affaire su nekkee ay professionnel dëgg ngeen yaakaar naa ne affaire fond d'écran moom warul tax ngeen di joxe ay ay ay ay di taxal doomu jàmbur bépp ku ko bëggoon a songu takk ko bu déggee information bi xam nga ne Sadio Mané kenn du bokk moom mbalk parce que kuy wu mag la car macha allah kenn du ñëw di ko affronter naan dégg naa Sadio Mané ci Zeyna su ko defee nag ngeen lambuloo doomu jàmbur ji xuf ma la yéen su nekkee dëgg la félicitation kii jigéen la kii góor la on a le droit mais man gëw ma ko gëw ma ko validé wu ma ko te am naa yaakaar que ne Sadio Mané ay mbokkam duñ ko bàyyi muy takk ngu nekk Dakar man dama ko foog rek waaw gu nekk Dakar nag dara newu ci mais dama ne. Sadio Mané ay mbokkam duñ ko bàyyi mu takk guneeg Ndakaaru loolu laa wax <laughs>